nag ngeen joué suñu visage. waaw ñoo ngi lay nuyu. waa maa ngi lay ñu ñëw fii fekk la sa jour mariage loo xam lu bette la naka ngay sant yàlla bu si yonent bi sama ay xamante ne ñoo ma yar ba ma toll nii tey ñu may maye. sama famille bàyyiwuma kenn damay dama leen di gërëm sama sœur yi ak sama xarit yi li ñu fi wax yëpp si ñoom la nekk dañu baax rek di ma waxal mais bu nu melul woon noonu du ma leen duma leen du ma nekk ñoom ba leen di fréquenter sax dama leen di bàyyi ak yàlla di wax yàlla na yàlla saxal sunu ànd bi te yàlla bàyyi ma ak ñoom te kontaan naa trop parce que bu ma yuuxoo ñoom laay njëkk gis ma mënuma sax lim na su ma limee damay juum monsieur Ndiaye nag man ngi koy gërëm bu baax ndax moom moo fekk ku doy waar mu ñëw ni dafay dugg si moom <laughs> man koy gërëm bu baax di ko wax ni ko <laughs> mon amour I love you 何かなgërëm sama jaara ci xew laa nekk xaaral ma bàyyi bu gërëm sama yaay bu baax aw ma fayam moom sama papa yëpp aw ma seen fay parce que sama yaay démb la jógee Dakar tey si tey jii la la la egg Saint-Louis te teewul mi ngi dem sonn ba dee voix mi dafa kase sax mais mi ngi mi ngi sonn ndeysaan dama koy gërëm te ñaan yàlla mu bàyyi ma ak moom ba ma eggale sama yéene yëpp si moom moom sama papa ñëpp euh, maa ngi remercier ñëpp daal bàyyiwuma kenn sama famille yi nekk ndar et tout defuma dara nag moo tax ma toog fii rek balaa nit yi di ko gis di foog ni dama bàyyi ndar wala affaire yooyu. ci foofu la ñuy duggee sax lan moo waral mariage bu simple nii amul kenn ku ñëw amul bongamaan amul taasukat amul géwal sa ay xarit ñett ñeent. lan moo dañ ko doon waxtaanee rek ñu takk sëy bi ah dañ ko doon waxtaanee rek ñu takk sëy bi. Mhm. loolu moo tax fan nga xamee monsieur Ndiaye. monsieur Ndiaye <laughs> sama benn xarit moo ma ko présenté woon nag mhm. sama benn xarit moo ma ko présenté woon. ah bi quoi. non non non moom du si série bi. Mhm. c' est juste que des fois ñu xuloo dem ak ñëwaat affaire yooyu mais je pense que moom moo ëpp fi yeneen gars yi. mais gars yi dañu doon woote rek de ma numéro. foofu rek lan koy yamale kii mooy gaynde gi moo tax ñëw na fas tey. <laughs> léegi nag maa ngi baalu ñëpp àq na ma ñëpp baal yoreelu ma kenn àq. waaw kon daal ñu doon fëgg nga leen di kale n'est-ce pas. ah waaw am na ñoo xamante ni ñemewuñu woon ñëw maa ngi doon dégg seen ay wax mais ñëw ñu. mais am na tamit ñu ñeme woon ñëw am na ñu ñeme woon ñëw waaw monsieur Ndiaye moo dëggal boppam daal. kon monsieur Ndiaye sant di ko gërëm. man di ko wax félicitation. merci beaucoup yàlla aar leen. amiin yàlla ana yan kàddu bi moom la ko lekk di ñaan. ñu uh-huh. ñëw auprès de vous toog ànd koog yow. am na ñu ci xam dañuy témoigner bay jooy. yoo xam mënuñu wax ndax liñ yëg si yow. di say bu yow tamit en retour lan sa xel dañu baax rek parce que li comme li ma wax léegi rek li ñuy wax baax ci man yëpp ci ñoom la nekk. Mm-hmm. parce que man mën naa maslaa mais mënuma tricher. dëgg la mënuma tricher bu fekkonte ne wan nan ma lenn comme ay sama doomu mag bii ni damay ñëw këram tout le temps am na lu ma doon wan këram du ma fa dëgg sama tànk. bëri naa fu ma mën a dem fii de. mais am nañu moom lu ma doon wan billahi du ma dëgg sama tànk ci këram moom moo baax rek. dañu baax jël ñoom dafa mel ne dañu jël seen bopp tegaat ko sama kaw et que loolu charge la seen yaay bi nekk Saint-Louis aussi sama grandisseur sœur lu mu wax danaan wax leen ak Khady Ndiaye bi ñuy takk doom dafa ne man sama yoon nekk su lu Khady Ndiaye wax laa wax lu mu waxul waxuma lépp daf ko teg sama loxo boo ko woowee sa mun la woon Khady Ndiaye donc xam nga ñooñu aw ma seen fay yàlla rek laa leen di bàyyil et que nit mbokkam rek laa am man aw ma ku dul sama mbokk su ma leen jàppalee aw ma keneen ma jàpp mm. parce que ñoom kese laa am même buy metti sama digganteeg ñoom aussi ñoom laa am donc voilà dama koy sama digganteek ñoom dama koy matale dama koy matale sëkk incha allah rabbi sama xarit yi aussi bàyyi ma ngi ñoom it <laughs> kenn demul ñu des parce que baax rek moo am solo te en fait ñoom dañuy bàyyi seen kër ñëw Dakar mën nañu am fu nu nekk de mais dañ naan ci yow laa bëgg ñëw te loolu nekkul ci série bi may commencé feeñ ci série bi la dafa yàgg man ak ñoom ñuy galéré muy metti ba tey bu neexee ñoom rek laay gisaat donc aw ma seen fay jolli sama xarit la comme lu mu wax léegi rek mboose moom ma boole woon ak moom ma am benn xew mais depuis boobu ba tey mu mel ni dafa ma xam temps bu yàgg aw ma fayam mu déplacé wu jóge mbuur moom daba juuf mais yaayam bëgg ma ba dee mu nee na may taaw loo wax mun ma wool sarak yi nga yedd leen nga waxtaan ak donc loolu rek c'est quelque chose kii moom euh, sama préféré la man maa ko bëggal sama bopp yàlla moo ñu boole ñu bokk série bi ma gis ko bëggal ko sama boobu taxaw ma lan moo tax barki Serigne Touba dama ko bëgg rek te yàlla tax moom tamit même chose mu am cofeel bu boo xamante ne man des fois suy wax ci ma sax daf dafa may dépassé bu dama naan kii est donc yàlla ma yàlla bàyyi ak ñoom yàlla saxal ànd bi ñi ci am yàlla dëgëral seen sëy ñi ci amagul yàlla jox leen ci barki Seydina Muhammad nga nekk ci milieu bu sensible bu ci nekk xam na am na ay avantages mais inconvénients yi moo ëpp yàlla dogal tey nga am borom kër jigéen ñëpp di ñaan gisuloo ni mën na am lu mu la yàqal ci sa biir liggéey quoi. non non gisuma ni am na lu mu may yàqal parce que destin la bu yàlla tracé li ma war am rek laay am. Hmm. munu ma am leneen loo xamante ni yàlla rëdd ko sama cër bi man lu ñëw damay nangu parce que jaam laa et yàlla moo ma sànq lii nekk ci man yëpp wala ma koy jëfee moo ko décidé bu dul woon moom du am donc aw ma benn kii bu ma ci bu ma ciy regret bu ma ci am franchement. xam nga lan nga wax ñuy teg ay préjudice sa kaw ñi nga ak ku ñëw gis la nga toog nii dina xam ni ñaari personne bokkul ana lan ngay wax nii parce que man Khady Ndiaye bu ma ñëwee gis la nga toog nii ak li ngay dégager ci ci série bi bokkul ku la xam-xam ni loolu boo ana lan ngay lan ngay wax ñooñu nga xam dañu lay jugé te xamuñu la côtoyé wul ma ba xam kii boo ko waxee mën na wax man maay kan genre moom bu waxoon lu négatif ci man daf may metti mais keneen bu ko waxee dama naan xaw ma moo tax nit ki nag ñoom dafa am des fois ñuy jaawale personne ak personnage et que c'est man Khady Ndiaye laa kii toog nii Khady Ndiaye la mais bu ma duggee Evenprod Kumba mu ndaw laay nekk te li nu bëgg Kumba mu ndaw def ko dama ciy dem ba mu mat parce que dan may fay seen xaalis aussi comprendre que loolu moo tax mais du question que ni li ñuy gis ci série bi moo nekk fii man à multi reprise nit daf may daf day dégganteeg man parce que Serigne Touba démb rek si mujj benn nit déggante ak man dafa wax ba sama yaram bi di daw barki alxuraan vocal yaa ngi dafa wax ba sama yaram mu man de xalaatuma woon que yi su ma waxee ak yow nii kàddu yi ngay tontonte ah, ak man ba pare teg ay projet yoo xamante ni moom xalaatul woon ci àdduna que mën na genre dina dem ba toog waxtaan a ak ba teg ay projet peut su ma déggee dina xam dina xam ni moom laay waxal donc loolu rek c'est quelque chose nit ki balaa nga koy jugé da nga koy côtoyé ba xam moom mooy kan ba pare balaa nga koy jugé amee comme genre lu may wax amee lu ma kenn ak kenn amee lu ma ak <laughs> ñoom ñiy wax ñëpp baal naa leen barki alxuraan baal naa leen ci xol bu sedd buy parce que chaque jour ma génn kenn taseeg man ma nuyu ko wala ma def benn geste mu ma ay yow baal ma ak baal ma àpp et que damay xam ne am na ñeneen ñuy wax taxaw ma leen baal naa ñëpp na ma ñëpp baal yoreelu ma kenn àpp kenn yoreelu ma àpp tooñu ma kenn kenn tooñu ma maa ngi leen di sant di leen gërëm je vous adore encore une fois monsieur Ndiaye I love ma mon léegi prétendant yi loo leen di wax nag. waaw ñu ah. ñaanal ma. waaw nan ma ñaanal nan ma ñaanal ma sëy sëy bu barkeel duñ ci njaboot bu barkeel c'est l'essentiel na ma ñëpp ñaanal bàyyiwuma kenn na ma ñëpp ñaanal. lan ngay dénk mu sa ñaan. que waaw. waaw léegi bàyyi sama xarit yi waxal.